dictateur Macky Sall dictateur parce que boo xoolee mbooloo mi dajaloo fii macha allah et présence du grand parti c'est une présence très remarquée et tey jii dans un premier temps la de Khalifa Sall ak derrière le retour de Karim Wade parce que injustice moo dal seen kaw et derrière soo gisee ñun ñu participer ci xeex boobu du des personnes mais derrière c'est xeex bi ñuy xeex pour les libertés fondamentales nga xamante ne ci at yu bëree bëree bëri sénégalais yi dañu xeex ba ba am ay acquis mais ak yooyu dañu seetlu depuis 2012 bu Macky Sall toogee ba léegi. doole jàpp nit ñi tëj ci kaso yi loolu la fi président Macky Sall ne nekk te loolu de cela nga xool ni réew mi dara doxu fi soo xoolee nit ñi amuñu a dégg ci Sénégal ça veut dire que acquis économique yi ñu a am sax Macky Sall ak waa këram naxasal nañ ko xoolal njàng mi njàng mi dans ce pays gën na yàqu et eh, avec récemment boo dégloo rek procureur ak les les xam ne réew mi maintenant fraude sax la ñu instauré en droit ce qui n'est pas normal donc mbooloo mii ñëw ñëpp tey Macky Sall bu ko seetaanee normalement dafa wax lii premier jalon la et que aujourd'hui l'opposition s'est retrouvée gisee ni mu demee nii nga xam ni opposition bi booloo nañu pour jëlee fi Macky Sall de façon définitive et dootuñu step by step ba mu jóge ci bopp réew mi parce que Sénégal nekkatul Sénégal depuis 2012 yàqu na. ba mu demee yàgg na bokkul sax ci suñu chemin parce que lii fi nekk gisoo fi nitam ça veut dire que le Sénégal est derrière l'opposition et que Macky Sall sa règne est à partir du dossier de Khalifa Sall et de Karim la CREI n'est pas reconnue au niveau international, il faut qu'on voit que cette justice est indépendante. Laissons Karim Wade être candidat, laissons Khalifa Sall être candidat, libérons le parti d'Histoire, éliminons le parrainage et prenons part au tay bi tay liñ doon séntu lépp gis nañ ko ci ndax mbooloo mi génn na macha allah ay ndaw kese boo ëpp ci liggéeyam loolu dafay wane ne nguuru Macky Sall jeex na. tey lii da koo war a woon ab exemple mu xoolaat boppam balay nekk balay nekk loo xam day nekk c'est trop tard parce que Sénégal àgg na foo xam ne wax naa ko ba tàyyi adduna bi yëpp jël nañ seen bët teg ko ci Sénégal kon nag moom su fekkee bëgg na Sénégal bu mu taal Sénégal bu mu yàq Sénégal mënula organiser élection ca Karim Wade bokkul Khalifa Sall bokkul loolu su ko bëggee it ñu ko seetaan ca lii nii tàmbali la rek fas yéene nañ koo wéyal semaine di ñëw wala 15 jours te dañoo bëgg it mu yaatu ñu décentraliser ko ba ci dem ci département yi nga xamante ne chaque fois que bu Dakar yëngutee capital yëpp dañuy yëngu manifestation yi am.